itam mënoo isolé wu ba mu dem ba mu dem si ngay génn doo tàggoo à chaque fois da ngay déplacé kenn du la yëg nan dox. c'est que si affaire Binta ci ne lan nga ci affaire Binta chef rek leen affaire Binta mënoo ci dara. gis nga yàlla bu dogalee jaam bi dafay nangu mënoo ci affaire Binta dara. xëy temps yëpp commissaire bi moo may woo quoi. commissaire bi lan yow xanaa da ngay bëgg a dof chef commissaire war na laa woo te doo lan la commissaire doyee je suis mieux pour dem wuy ji commissaire. que ce soit la dernière fois mu di la woo ngay gën kër te yëguma ko bu ma amati de amuloo lenn looy def ak moom Chérif xanaa deewu binte gi daf la dof loo su fekkee danga dof nag ma ko wax man xàmmeetuma la wala bu dee danga bëgg man ma dee toppi di ko nga wax ma léegi ma jël samay disposition je suis assez stressée d'accord ma de xam nga lan laa nam sama doom ji ma juróon ba ñëm naan dama ko yàq Chérif boobu laa namm nga dellu ci sa élégance dellu ci sa bëgg àdduna jovial loolu laa namm fi toll nii mais pas Chérif bi may gis nii dara miñ ma indil yaayam xañ ko boppam indil ma ko pour mu wettal ma sax même pas un mot boo ko rombee doog ko wax xaa yow danga feebar léegi xoolal rey ji laa nam te nga bàyyi yi ngay wax yépp justice bi mi ngi def liggéeyam bàyyi ko ci loxo yoon mën nga ma promettre loolu nga tënkat laa bëgg man sama doom laa nam te gisatuma boobu kanam ba tey jeex na takk de la semaine prochaine nga reprendre say études jàngeetuloo bopp tey dellul école. maa is bi may wax ak yow sama kër neexutul lamit mayuma jàmm mayuma salaam su ma ko joxee lekk ne suur naa su ma ko joxee ndox mu delluwaat ma ko dem na sax ba mëntul tëdd ak man ci la ci saal bi lay fanaan te loolu yëpp affaire bintaa yi la rek maa yoo xam nga bintaa man ak moom lu ñu melam ak alima benn lañ donc dee su amee. ñun li ñu war mooy ñu jóg dem xool xam nga def luñ ci mën mais Lamine mënul comprendre loolu lu nekk la may yàq lu nekk nee naa ko nag bu fekkee ne mënutoo ma supporté nga bàyyi ma ma dem ñu xool ni ñuy def loolu moom fi indi woon loolu fi duma la far bët bi may xoole Alima bët boobu laa yow yaa nekkul ci dëgg tey yaa nekkul ci dëgg suba yaa nekkul ci dëgg gannaaw suba ah ma dee bintaa gii ngeen jël ba mu nar a yàq seen àdduna man sama kër bët ki démb rek toj na te li mel nii c'est même chose la bëgg topp dee bintaa gi waa kër ñoom bintaa man leer na ma ne ña nga toog tranquillement di ñaanal bintaa mais maam buñ bintaa ni ñu meloon yow xam nga ko. mën a lu ngeen mën a lu kay dem dem na nga war a mën a defar sa sëy ume ku la jayul wax la dëgg yow yaa nekkul ci dëgg man chaque jour histoire ak bu ñu waxee ñu ne dee biñ toggule yàqule wéeg ko sa saak sa jëkkër xëy liggéey nga nekk ci avocat dee biñ naa umi lan la yéen tax mbokk bintaay li ngeen def sax ñoom loolu lañ def man leer na ma ne ñoom ñu nga di ñaanal Binta yéen a kenn taw ci sax ñaanal Binta xëy na waaw ak am teg avocat nga bàyyi sa sëy complètement léegi sa sëy bu ko tasee bu tasee nga war a ko ci dugal beneen jëkkër ko man bëgguma sama rek Lamine comprendre la. mënu la comprendre man Lamine laa ànd Lamine du la comprendre umbi sëy leen yéen da ngeen di jël sëy def ko mos a fubeerukaay yéen xale tey. kuñ ci muur sa kol jàkk jàkk ciikar ciikari fotowu paye ñaani ñëw ngeen fotowu pare ngeen si man mënuñoo wax ba ma far leen même bu nekk ci dëgg sax duma leen far dee bintaa nga bàyyi sa jëkkër doo ko tegal añ man def ma leer góor bu waxee rek dee na muñ nañ bay bëgga dee ñoom ñëpp nag xale yi tey seeni sëy jaaxal na ma torop dee bintaa moo war a tax yow nga nekkoon nga tas sa sëy yow bintaan ma nga tëdd moom moo ma am kay ndax sa jëkkër bu demee ba woon la ginnaaw umi yaa nekkul ci dëgg nañ waxante dëgg rek koo ko mën a waxal lii ma la wax loolu la lay wax pour la yendaloo fanaanaloo damay wëri avocat ndax dee bintaan pour la bintaan du ngeen ko ñaanal mu jeex ngeen bàyyi ay waajuram ñu jël seen avocat topp justice lu mu leen may ñoom ñu jël yéen ngeen ne yéen a koy defal seen bopp ndax bintaan seen xarit la woon ba yow sa sëy nar ci yàqu nii ah yaa ngi fa billaahi yaa fa sa jëkkër liggéey bi wàcc wala ñëw war la fekk sa biir kër bi nga tegal ko ay wala nga tegal ka reer ci avocat loolu neex bu ma woowee foog parce que ñun ñoo ko ñun ñoo ko jël ba pare. man waxu avocat bi yal na ma yàlla jéggal ak déegi rek laay bañ a dégg sama àdduna waaye dégg Binta li mu yàq ci àdduna bi bari na de sama kër tas na yow ñu ngi lay waaj a fase ndax Binta bi génn àdduna. yéen lii ndax jàmm la. maa niñ meloon rek la moo tax. ba nga war yow sa sëy war a tas nga wari waat jëkkër. dama bëgg rek nga wax ak Lamine man yow laay waxal yow laay waxal ba pare moo bala maa wax ak Lamine yow laay waxal yaa ngi fa xamu leen raxas tànki jëkkër xamu leen wax ju neex xamu leen taaj añ xamu leen bu seen jëkkër liggéey jee ba wàcc sax ngeen neexal ko xamu leen que yow nit ki man naa am coono fa muy liggéeyee am coono ci biir kër te fa muy liggéeyee fa lay jëlee teraanga ji mu leen di yéen xale yi tey yéenay kan yéenay kan kenn waxu leen dëgg sëy buñ mayee àllarba yaa ngi dégg wala ñu mayee la samedi bu àllarbaa ñu fase la ñaata sëy tas footu leen passé wu leen man sama dëgg laa leen wax duma la far tey duma la far suba duma la far gannaaw suba yow yaa nekkul ci dëgg ku la ko waxul def lay nax yow Assane lan la yow Assane li may kar-karee sànq ba tey pour lan la ah ak heure bi ma woon nii gis nga ko est bi may génn suñu kër tàgguwuma kenn damaa jékki-jékki rek romb sama mbàjj ak li ma sol xoolal xoolal li ma sol sax yow lan la. Eh, yow dara lay rappi rappi nii mais bu la waxul jox la te man dama lay wax à propos sa copain Balla mu dal Balla. pas problème. amul benn problème man mii la nar a indil ay problème si parce que Balla daf may woon n'importe quelle heure n'importe quel jour di ma message d'ailleurs sa message yaa ngi nii soo bëggee ma won na ko pour won la ko ne li may wax nii dama ci am ay preuve te gis nga benn affaire dama la koy wax Dada gis nga bu ma nammee di dund di suufu sama copine wala di nangu ay faru jàmbur yaakaar naa ma démission nag moo ma ko mhm. que nag comme ni ko sa yaay di waxee nekk ne dama coupable capable waaye nag yëggaguma ci criminel ba te yow tu sais très bien de quoi je suis capable dama bëggoon nag su fekkee da nga bëgg Balla nga def attention ci moom parce que du nit bàyyi ci xel bu baax. Asta man li ngay wax nii dégguma ko de dama koo mënta sax dégg li ngay wax nii comme ay lépp ak ay léppoon sama nopp bi maa bëgg li ngay wax nga xool bu baax fan nga koy teg ndax sama baal la nga nekk di wax nii mais yow je suis sérieuse avec toi. ak lii mën a waxtaan ak yow. bien sûr. ci loolu. maa ngi nii cool comme depuis ma la gisee mm. ah oui. gis mm. ah, comme d'habitude. liggéey bi. waaw ñu ngi si kaw. saa yu affaire yi ñu ngi ñëw quoi nice parce mm. que j'ai retrouvé le sourire. ah oui. koo perdoon nii. Ah, bien sûr. ah jóge d'ailleurs. ah pour yow daal dama fee di la fen di la yàqal yow sa diggante yow baal non tu te trompes et d'ailleurs sa wax ji xam nga lan nañ toog xaar ko ndax léegi mu yegg si. yegg si fan. fii. <laughs> Balla lan lay def fii. n'est-ce pas que moom la fais ok baax na merci maa dem. eh eh foo jëm. lu may def fii. la ñuy toog xaar ko. après su ma ko xaaree pour lan n'est-ce la doon woo yow la soxla bu ñëwee mu fekk la fi mu wax ak yow maa la woonoo di la expliquer nga commencé di am ay doute sa bopp toogal ñu xaar ko doo fi bouger